الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokki jullit yi ñu ngi sant sunu borom subhaanahu wa taala cant gu màgg gu yaa te kawe te tolloo ak màggaayi sunu borom ak kayawaayam ak sori gu nga xam ne sunu borom sori na ko lépp isik ak ayib ak i manqué manqué nu ngi julli di sëlmal ci sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam di muhammad di ñaan sunu borom mu dëkkee dotti waamem xéewal ci kaw yonente boobu ak ay soxnaam ak njabootam ak mboolem ay saxaabaam nu ngi ñaan yàlla mu borom ñu defal tawfiq ba keroog ñu dajeeg moom dañu di nekk ci sunu woote bu yaa booba nga xam ni waxoon naa leen ni mooy nuqtatul bidaaya mooy nuqtatul nihaaya mooy setal pas-pas yi setal xol rocc ci leneen lu dut yàlla subhaanahu wa taala roob ci yàlla yi nga xam ni ab jaam du dajeeg yàlla jariñoo fa lenn ci àllaaxira ci ay jëfam lu dul daa fekk ni ab xolom xol bu set la yawma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim woote boobu mooy gaalal nuux ga ca jamonoy tuufaan yéeg mucc wuute alko woote boobu mooy la yonent bi amoon fukki at ak ñett di woo saxaaba yi loola qulu la ilaha illa allah tuflihu wéetal leen yàlla gëm ni moom rek mooy yàlla moom rek lañ war a jaamu benn cër bu yàlla moom kenn waru koo jox keneen ku dut moom soo ko defee tooñ nga loolu de mooy pas-pas bu set ba yonente bi faatu yardee saxaabaam teyit ni képp ku ca faatu insha allah loo néew li néew li ay jëf nga dugg aljanna bu soobee suñu borom ginnaaw bu ñu jeexalee ci nettali almahdi ci jamono joo xam ni comme ni ngeen ko xamee ñu xamee ko ay doomu aadama dañuy feeñ ci kaw suuf si moo xam sunu réew ak yeneen i réew di woote woo Mahdi di woote woo Isa te ñooñee ñëpp la shakk comme ni leen ko yonente bi waxee sallallahu alayhi wa sallam bal baat ba yonente bi jëfandikoo la ñuy jëfandikoo ay dajjal lañ waaye ay kàccikat lañ te nii ma ko waxee noonu la ko yonente bi wax sallallahu alayhi wa sallam dajjaluuna kaddaboon kulluhum yazaamu annahu nabi yonente yàlla bi ne dana feeñ ci sama ginnaaw ay nit yoo xam ne ay dajjaal lañ ay kàccikat lañ baat bi bu ma ko wax mu diis ci kenn déedéet nii la ko yonent bi waxee moo tax ma di ko waxee noonu baat boo xam ne yonent bi rusu koo jottali na ko boromam jottalee na ma ko déggee noonu laa koy jottalee dajjaaluuna kaddaabuun ay dajjaal lañ ay kàccikat lañ yonent yàlla muy dañuy woote woo ni ay yonent lañ te man rek maay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon tey ñu ngi waxtaanee Isa alayhi ci jamono boo xam ne xam ngeen nit ay nit feeñ nañ di woote waa Isa ma al asafi shadid sax ñi woote wa Mahdi moo ñi woote waa Isa ndax Isa moom ñi koy woote wa bariwul waaye mbokk yi ci tàmbali xam naa danañ am la kéemaan su ma jëlee Isa def ko yonent def ko saxaaba dama naan Isa ni alayhi salaam waaye damay waxaat Isa ni radiyallahu anhu Isa di yonent yàlla waaye Isa di saxaaba ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon damay wax isa ni alayhi salaam waxaat isa ni radiallahu anhu ma booleel ko garaatu nubuwa ak garaatu saxaaba waaye bu fekkee luy kéemaane da caa nekk damay wax ni kéemaan googu lu yomb da koy dindi mooy ne isa rek mooy kenn koo xam ni ci yonent yàlla yi dafa boole garaatu nubuwa ak garaatu soxba nga ne luy sabab bi ma ne sabab bi mooy yonent yëpp gis nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni ci xadis boobu ca Buxaari ak Muslim te yonent bi di ci nettali keroog ba mu rañaanee yàlla wan yen yonent ya ba mu jiitaleen a julli te muy xadis bu wér yonent yëpp gis nañ Muhammad Muhammad gis leen waaye Isa nag bokk na ca ña ko gis ba noppi te Isa mi ngi dund ba tey dëgg la nag lenn ci borom xam-xam dañuy wax ni faatu na di tegtaloo inni mutawaffiik damay baamuwaat la ma waxoon ni baatu alwafaat fi l Qur'an dana ñëw di tekki faatu waaye dana ñëw di tekki nelaw tegtal la bokk na ci mooy huwa alladi yatawaffaakum bil layli wa yaalam ma jarahtum bin nahaar inni mutawaffiika wa raafi'uka ilayya li gën a dëgër ci waxu borom xam-xam yi mooy sunu borom da koo roob ay nelaw yëkkati ko ca kaw ndax yeewu na ndax ma ngay dund ci lu mu nekk yàlla moo ko xam waaye faatu def ko te day dellu si waat insha allah loolu mooy li gën a dëgër ci xam-xam insha allah kon Isa gis na yonent bi te faatoogut te dana dellu si waat ci kaw suuf boo demee ci al isaaba benn téere la bu am solo ci kàgguy sunna yi alxaafis ibnu xajar moo ko taalif ci xamle ñan ñooy saxaaba yi te tàmbali ba dafa wax ni képp koo xam ni gis na yonent bi muy dund charte bi muy bi muy dund am na ñu bari ñoo xam ne boo jàngee seen dund dañ naan ne gis nañ yonent bi waaye bi yonent bi faatoo la ndax am na mbooloo moo xam ni keroog bu yonent bi faatoo la ñu yegg ci Madina wëlbatil nañ leen fañ sàngoon yonent bañ gis kanamam waaye ñooña duñu ay saxaaba ki nga dund ci lislaam sax te ba faatu fekk la ca kooku mooy ab saxaaba isa gis na yonent te loolu yonent bi wax na ko sallallahu alayhi wa sallam isa ku gëm la bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu alquran a ko tegtale ndax yàlla moo ni damaa jël e, siñanteeg yonent yi accord yi képp koo xam ni ab yonent nga yonent bi fekk la fi di nga bàyyi ni nga jàppoon gëm Muhammad te ñoom ñëpp nangu woon nañ ko kon laa shakka isa gëm na Muhammad moo tax keroog ba yonent yàlla bi gisee Omar ibn Xattaab for ay fooy yoo xam ni nee na ñooy tawraat la bible la wala wala wala injil la Omar di ko liir yonent bi da koo këf daal di koy sànni mer ba bët yu xonq sallallahu alayhi wa mu ne ko nii ngeen di def rek ma wuuteeg seen yonent yi giñ naa ci yàlla Isa bu dellu sa wala Muusa amut loo yaakaar lu dul ñëw ci sama gannaaw topp sama gannaaw sallallahu alayhi ya rasul alayka ya rasul allah kon Isa ab yonent waaye ab saxaaba la ndax gis na yonent dina dellu siwaat te bu dellu siwaatee du nekk ab yonent di woote wooge ndax daa nabiya baada muhammad waaye ab njiit lay doon bu baax bu ragal yàlla di gindi xeet wi jëmale leen ila siratullahi almustaqim kon munumaa jàpp ni warees naa mën a wax ci wàccuk Isa te waxuñ ci kan mooy Isa du ñàkk koo xam ni dana dégg lan wax Isa waaye xamul kuy Isa ma jàpp ni kon wax ci kuy Isa ak lenn ci dundam ak yaayam ju baax ja ak lu mu gàtt gàtt loola muy lépp gën a am solo bu ko defee ñu doog wax kookee nag nan lay wàccaatee ci kaw suuf kon isa alayhi salaam wala ba ma ne isa radiallahu anhu moo tax boo delloo ci tajridu asmaa sahaba wala nga dellu ci téere alxaafid zahabi ba muy waxtaanee dund saxaaba ya dafa tarjamaale isa wane ni isa ab saxaaba la te lii moo tax mu def lu mel noonu kon sunu borom soo tax mi ngi nettali ci isa ak yaayam ci ci suuratu aali imran sunu borom mu ni inna allaha astafa aadama wa nuuxan wa ala ibrahima wa ala imran ala alalamin yàlla day moo sàkk aadama moo ko tànn tamit nag ci biir yonent yi moo sàkk nuux moo ko tànn tamit moo sàkk ibrahim ak ibrahima moo leen tànn defal leen ay ngëneel ci kaw mbindeef yépp ñii nag ak njaboot lañ goo xam ni yen ñaa nga bàyyi koo ci suñu borom ni id qaalat imraatu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fàttalikul jamono ja nga xam ni soxna sa imran ja ah dafa wax ni yàlla day lii na ci sama biir bi ni naa bu juddoo yow laa koy jox Mariam yaayam borom xam-xam yi tafsir dañuy wax ne dafa toog benn bis génn gis ci kaw garab benn picc bu am ay doom di génn ci ak lekk di ko jox doom yi fekk yàlla daf ko na nattoon mu sëy lu yàgg amut doom ba mu gisee ci ma di leer doom ja xelam dem ci doom te màggat na walla boog yàgg naa sëy te amul doom mbir ma def aw tiis ci xolam mu tàllal ay loxoom di ñaan yàlla doom bokk na ca lam doon nisar mooy doom ji de bu juddoo dama koy sarax yàlla ni ma koy sarax yàlla mooy lan mooy dama koy def ci Jérusalem muy baytul maqdis mu di ko a ka minaasa ka garde ba keroog yàlla di ko moom te xam ngeen loolu sunna la nit ki bu fekkee yàlla da ko wërsëgalul doom wala dafa am lu mu bëgg mu nisir loola ci sunna yonente bi la bokk sallallahu alayhi wa sallam gis nga kii bi mu gisee ne mu yéem ko ci waxtu woo xam ne yaakaaroon dina am doom ñaan na yàlla boroom xam-xam dañu ba mu ñaanee ca saasu ca la gis baax ba mu gisee baax ba nag ci la ànd ak borom këram ca la ëmbee soxna si ñu tuddee Mariam loolu mooy li gën a wér Mariam moomee bi mu ko ëmbee mu ni qaalat na ne rabbi inni wadaatuha unsaa ah, am naa doom de waaye nag li ma am jigéen la xam nga lu tax mu ni jigéen la lan bëggoon mooy mu am góor ndax góor moo gën a am capacité gën a dëgër ci jëf liñ ko bëggal liñ ko liñ liñ ci jublu woon ci bàyyi ko ci may te baqdis mu ni walaysa zakaru kal unsaa góor kat melut ni jigéen lii borom xam-xam yi dañuy wax ni tegtal la bu lay wan ni kon yàlla féetale na kaw góor ci jigéen tekkiwul dañuy toroxal jigéen tamit nag waaye nag wa inni sammaytuha Maryam liir baa ngi nii tudd naa ko tuddee naa ko Maryam aaya alquran angoo bu lay wane ne dagan na nit am doom ca saasa balaa ñu koo réewle sax nga tudd doom ji ca tudd doom ji te yonente bi saa sallam di sunu yonente def na ko ndax am na doom bu góor ci guddi gi tuddooy ko baamam Ibrahima ca guddi ga ba mu xëyee ne saxaaba yi biig de yàlla war a na ma gan tuddee naa ko sunu maam Ibrahima loolu ku ko ngàññi ngàññi nga sunna yonente bi sallallahu donte beneen bayit sax na kon mu ni sunu borom tuddee naa ko Mariam waaye maa ngi koy muslul ci seytaane di ko muslul ci njabootam moo tax yonent yàlla bi ni amul benn liir buy judd lu dul seytaan dana la rëkk aw rëkk woo xam ne da nga ca jooy ba mu des Mariam ak doom ji de ndax ñoom seen yaay moo leen musluloon ñaanal leen ñaan googu mooy wa inni u'iduha bika wa dhurriyataha min ash-shaytan rajim moo tax bal bu jooyut tax nit ñi dañuy fexe rëkk ko wala ñu dompat ko pour mu jooy yent yàlla bi mu ni saa su jooyee fekk na saytaane rëkk na ko aw rëkk ndax booba Aysa ak yaayam jariñ ñoo ci mucc muy Mariam Aysa bi mu juddoo wala Mariam bi mu juddoo mooy yaayu Aysa fekk na booba ñu nekkoon ci baytil maqdis di ay jaamukatu yàlla yonent yàlla Zakariya ci seen biir la bokkoon di ab yonent waaye di jaamukatu yàlla yonent yàlla Aysa nag balaa muy juddu Maryam ci boppam mi jur mi ko jur ak soxna si yaayu maam soxna Zakariya ñoom ñaar ay mag ak rakk lañ am na ñu ne déedéet ay doomi bàjjen lañ kon wuute am na waaye mbokk bu jege la moo tax foo xool ci alquran fu ñu tuddee xisab Isa tudd fa xisab wala fu ñu tuddee xisab Yaxya tudd fa xisab Isa ndax ñoom ñaar ay doomi bàjjen lañ woon wala ay doomi ndey lañ beneen bi ci des mooy ñoo juddoondoo ci génn kër beneen bi ci mooy ñoo yaroondoo kon bi loolu amee mu daal koy indi moom xale bi ni kii kat dama ko nisoroon jox ko yàlla kan moo ko yar ci yéen jaamukatu yàlla yi di ko xëccoo ci jàkka ji biñ koy xëccoo yàlla subhanahu wa taala yenkeewal leen ñu tegoo ko bant biñ ko tegoo bant bantab Zakaria moo njëkk génn moo tax Zakaria yar ko moo tax suñu borom dikko duñu is yulquuna aqlaamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladayhim yaxtasimuun ba loolu amee Maryam Zakaria moo ko jël yar ko sunu borom ni kullama daxala alayha zakariya almihrab mariam zakariya defal ko benn paquus ci jàkka ja mu fay jaamu yàlla ba léegi maa ngi ci mariam ñëwaguma ci isa muy ko ci yàlla bu mag zakariya day ñëw fekk ci néegu mariama ay fruits ay pomme ay orange te dëkk ba amut pomme amut orange amut garabu pomme amut garabu orange li gën a yéeme mooy fruits mango ca jamono ba muy ñor dañ koy fekk néeg mariam ca jamono ba muy ragit dañ koy fekk néeg Mariam maanaam daal firwi ya am kenn xamut fu muy bàyyi Zakariya yéemu mu ne ko waaw yaa Mariamu anna laki haada yow foo jëlee lii mu ne ko huwa min indillah yàlla de moo may yónnee fii ay firwi ma di ko nekk allahu akbar unzur ab jigéen ab jaamukatu yàlla mu yegg ci góorgóorlu ak ragal yàlla ba yàlla di ko yónnee ay firwi yu bàyyi koo ca ajana ja Zakariya mu ne aha gone gu xonq coy ma yar ko mu mën a jaamu yàlla ba am ay firiw yi bàyyi koo ca àjjana ja te man mii may paabu ne lëng ànd ak sama soxna ci ay at mënuñoo fexe ba am doom naa ñaan yàlla doom mu ni hunaalika daa Zakariya rabba foofu rek Zakariya dem nag daal di dugg ca xaymaam ja moom it aw daal di ñaan yàlla ni ko ah yàlla kat man de ci lii ma gis firnde la bu may ci gone gu xonq coy yi li ma ci gis firnde la bu may wan man nga maa may doom ak lu ma màggat màggat ak lu sama soxna jaasir jaasir ah loolu ba mu amee rek sunu borom tamit nangu ñaanam moo tax mbokk yi ñaan lu am solo la ñaan nan ko fonk wallahi loo yaakaar ni ñaan mënu ko ñaana nga ca kaw loola mën na lu ko raw noonu bi mu ñaanee yàlla sunu borom bégal ko ni ko du ma yem ci may la doom de dinaa la bégal ci may la doom doom ja góor lay doon yaxyaa lay tudd te it day day day day dund yaxyaa muy koo xam ne lam yakun lahu min qablu samiya amut ku mës a tudd ci àddina yaxyaa ko dut moom xoolal ñu ko yàlla may may na ko doom ci jamono bu mu ko ñàkkee yaakaar may na ko doom ju góor ba pare ni ko yaxyaa lay tudd yaxyaa lay tudd li annahu yaxyaa yaxyaa lay tudd ndax day dund ndax yaxyaa mooy kuy dund doom ji tudd nekk yaxyaa boo jàngee taarix dañ lay wax ni yaxyaa isa ñoom ñaar ay naataango lañ di ay gone di ay jaamukat yàlla yoo xam ne lu ne defandoon nañ ko bal sax lay wax ni isa ni ak yaxyaa mat nañ leen di leen dawale goney koñ bi ndax dañoo judd rek baax ragal yàlla ba ne yaxyaa kaay ñu fa mu ne maa leen laa nga xulaqtu man yàlla binduma pour fo ah waa koñ bi nii gis nga ñii bu ñu leen bàyyi suñu gone yi danañ leen yàq te xam ngeen loolu lu akafe yàgg kuy góorgóorlu ci dinañu xale du teel a dem jàkka da ngay xale du teel a dem jàkka subhanallah xale buy teel a dem jàkka da ngay dee nga di dem àjjana aka baax xale teel dem jàkka te yonent bi daan tungoonu gone yi di leen yóbbaale ci jàkka ja gis nga ñoom ñaar ñu ñëw benn bis rek xool fu ñu laaj waa kër gi ne waa ana gone ñu doon foyee ñu ne xale yi nekkunu fi ndeke xale yaa ngi ñu tëj ci biir néeg bi ñu dégg kuruj kuruj yeeg coow li ñu ne waaw loolu yëngu lu mu doon ñu ne ay mbaam xuux lañ ay saa daal dem ak yaxya ñu tijji rek fekk mu nekk ay mbaam xuux loolu al xaafid ibn kathir mi ngi koy nittali ci bidaay wa nihaaya te lu wér la ay mbaam xuux bi nekk ñu ubbi rek fekk yàlla dox bi xale ay mbaam xuux gis nga ay jaamukati yàlla lañ woon ñu ragaloon yàlla lañ woon Isa alayhi salaam noonu yàlla wërsëgal ko Maryam nag moo tax sunu borom ci juddug Isa ci suratu Maryam saar bi yàlla tuddee Maryam mu ni waskur fil kitaabi Maryam tuddal ci téere bi Maryam moo tax al allaamatu saadi mu ni lii teraanga bu rëy la yàlla jagleel la saar yemu ci waaye mu ni tuddal diw ci téere bi ku yàlla xool ba sippali la nga di jaamam bu néew bu néewle yàlla ne nañ la tudd ci téere bi ndax jullit yëpp la tudd la ju ko yàlla defal te wax na dëgg sunu borom mu ni fàttalikul jamono ba mu beddee aw nitam dem ca sow jant ba ca jàkka ja mu daal di fay féete ba mu fa féetee di jaamu yàlla moom Mariam di jaamu yàlla ba benn bis rek yàlla nam mu koo may doom ju am yaay te amul baay muy Isa déglul bu baax coow yi bari na ci mbunt bi waaye li ma lay wax du samay wax du waxi sëriñ diw du waxu yonent bi waxu yàlla nga xam ne ñoo ko bokk man ak yow sunu baram mu ni ma yabal jibril jibril soppe ko fa tamassala laha basharan sawiya jibril soppe ko góor gu yanji gu punkal njool rafet lool dal di ñëw ba fekk mariam fa mu nekk mu ne ko ah man de dañ maa digal ma bégal la nga am doom mu ne ko inni uidu birrahmani mink in kunta taqiya yàlla na ma yàlla musal ci yow sori ma bu dee ragal yàlla mi ngi ci yow ndax bañ a gisantee góor moo tax ma sori dëkk bi yépp ñëw fii di jaamu yàlla fekk jibril la mu ne ko ah man kat damaa niru nit rek waaye malaaka laa moo xam ne maa ngi bàyyikoo ci yàlla moo ma yebal ndax da lay may doom ah Mariam mu ne kon nag kéemaan ñëw na waaw damay may doom naka lay amee doom walam yam tas ni ba sot te aw ma borom kër walam aku baxiyaate kenn musuma musuma tasal sama fer góoru jàmbur jigéen ju maandu woon la jigéen ju ragaloon yàlla la moo tax boo bëggee jur lu baax ñaari mbir dana la ko may benn bi balaa ngay bi ci des boo sëyee ba noppi balaa ngay sëy takk sa kumba ba mu dëgër ba kenn du la mën a joxoñ baaraamu tuuma boo sëyee ba noppi sa borom kër nga déggal ko di ko tarbiyew ba mu gërëm la wallahi rabbil izzati bu ko sunu borom dogalee da nga jur lu ñuy sukkal karaama gis nga kon noonu la demee mu ne ko ah yàlla de da na dana la may doom te doo am borom kër mu ne ko loolu lu mën a nekkee mu ne daa ah, loolu nag wax dëgg yàlla jër ta jaaxle ndax moom suñu borom moom mbiram nam ko namee rek lay amee huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas yàlla muy dañ koo fas yéene def mu nekk kéemtaan ñeel nit ñi wa rahma muy yërmande min naa ju bàyyi koo ci ñun jëm ci yéen wa kaana amran maqdiya mbir la mun dogaloon ba noppi ah foofu rek ca saasa rek ci aaya yi sunu borom mu ni ndaw si daal di ëmb nag yëg ni am na lu ne ci biiram borom xam-xam yi tafsir dañuy wax ni jibril daa ñëw ba jub ko rek daal di ëf aw ëf ëf gëmu ëf moo dem ba yegg ca moom daal di dugg ca muuraay gi mu muuru woon yegg ca biiram comme ni jigéen di ànd góor ba mën caa amee doom allahu akbar ndax innama amruhu ida arada sey an yaqula lahu kun fa yakun moom lu mu soob rek kun la koy wax te dafa nekk di kun kuni di sonn ndax moom kat mbiram yi yépp lu notewu la dogaloon ko balaa muy am mariama yëg ni nag ah, biir baa ngi jóg dafa ëmb affaire bi tiis ci moom lool metti ko mu yëg aw naqar bay wax ni yaa laytani mittu qabla hada man deewoon avant tey sax ma gënal wa kuntu nasiyan mansiyan ma nekk ku nu fàtte xabaru kaana kenn du ma tudd ci suñu borom ni ko déet Mariama loolu ëpp naa wax moo tax borom xam-xam di wax ni fitna yu métti ba nar a yàq sa diine war naa sabab dagan nit ki sax ñaan yàlla dajeeg boromam donte am xadis ñëw na yonente bi ni lu fitna yi métti métti yàlla na ma yàlla rey ba ko su mënta ñàkk nga am lox da nga yàlla bu dee faatoo gën ci man faat ma bu dee dundal gën ci man dundal ma gis nga sunu boroom Mariama ci jàkka kenn andilu ko ndox kenn jàppalewu ko kan mooy médecin fu muy visito fu ñuy defee ay appareil ci doom ji di xool ndax position yi baax na loolu lépp yàllaa koy def moo tax sunu borom ni ko wa huzzi ilayki bi jiz'i naxlati tusaqit alayki rutaban janiya sunu borom ni ko ma ji nekk tàndarma gu wow gësam ko soo ko gësamee doomi tàndarma yu tooy xépp ciy génne lekkal nga naan allahu akbar moo tax imam muqaatil mu ni xamuñ ci jigéen ju ëmb lu gën a baax ci moom lu muy jëfandikoo ko tàndarma waaye bu tooy allahu akbar ban léegi sunu sunu sunu fajkat yi sax dem nañ ba loolu duñ koo trouvé gis nga buñ la joxee doom yooyu ñuy tuddee feer sànnil jëlal tàndarma jigéen bu tollee ci benn weer ñaar jëm ñett di jëfandikoo tàndarma jamono bu ne ba keroog muy am doom lii ma la wax seetlu ko da gis ni melokaan bi ko yàllay jox tee bi ko yàllay jox taay bi ko yàllay jox du bokk ak doomi naturel yi ñu xam lii moom weet di essayé bokk ci moo tax borom xam-xam yi di wax ni li gën a baax ci jigéen ju toll diggante mooy jëfandikoo tàndarma waaye rutab la yàlla rutab ndax xam ngeen tàndarma dafa am ay xeet yu bari lu ëpp téeméeri xeet waaye rutab la yàlla jëfandikoo mooy bu tooy bi gis nga borom bi mooy médecin bi moo moo moo moo mooy orienté doom ji lépp ndax moo ko def moo waxyu jibril jibril ëpp ca biir ba la ca nekk nekk ca doom daal di cay sos bis ba Mariam tolloo ci am doom nag ah mu am doom ŋàbbu doom ji coow dikkal ko borom xam nga dañuy wax ne benn waay bu mu nekkaloon ca euh, jàkka ja ku ñuy ak Moussa bi nga xam ne Moussa bi nag jaaral moo njëkk a seetlu ni Mariama biir baa ngi yëkkati ko mu ne ah, lii day jaaxal na ma mu xëy benn bis Mariama dajeeg ma mu ne ko waaw. Mariama ndax mas ngaa gis garab gu te kenn jiwu ko fa mu ne ko waaw waaw Mariama xam na fa mu jëm mu ne ko waaw waaw nam def ba ji bu njëkk ma jiwu bu njëkk ba bu ko fa indi mu ne ko ah nit mën naa am doom kon teewul borom kër mu ne ko waaw waaw benn ngi nii ci man ndax yàllaa ma ko may sunu borom dëgëral na ko jox na ko layam sunu borom ni ko fa imma tarayinna min albashari ahadan fa quuli inni nadartu lirrahmani sawma benn doomu aadama bu ñëw nag laa andil ay benk ñenke cànki bukki yow bul wax ak moom joxañal xale bi la may def man yàlla xam naa ko allahu akbar ah mariama nga bu doom bi mu yegtee ñu ne ko yaa uxta haarun maa kaana abuka mraa saw in wa maa kaan ummuki bagiya yow day sa yaay seen famille xamaluñ leen woon caaxaan moo tax mbokk yi gis nga askan wu baax day tax nit ñi baax day tax jaboot ga baax boo seetloo démb dañ daan takkee sax dañ naan demal sa kër tànta diw wala demal sa kër bàyyi diw nga xool doomam yu jigéen ndax soxnaam saykat la moo tax li xew-xew tey boo demee ci tribunal li ëpp ci sëy yi la ca andi ci ay jafe-jafe mooy dañoo xewi la xewoon lii xew doog a xew ndax dañ daan tànn jigéen joo xam ni borom këram gërëm na ko sëykat la te xam ni olof dañuy wax ni mbay sa tef sa doom ja nday ja tafsir bu rëy lay def yonent yàlla ma ni sa jiw wi ngay jiwee doom tànnal tool ba nga koy bay ndax si dit day rogalaat di moo tax boo fekkee loo xam ni daanaka gàncaxu sën la nga takk ko dama ni boo jiyee boo amee gàncaxu sën ngay am ah doom ji ubbi làmb doom ji nekk faqmaan doom ji nekk koo xamante ni daanaka ay kirim rek lay def ba keroog muy faatu ngay am xoolal ñu daal di koy delloo ca askanam niñ baaxee mu ni pat ndax inni nazartu lirrahmani man mooy damaa woor ñoom seen woor bokkut ak sunu woor ñoom seen woor dañuy xiit ba noppi kenn du wax loolu moo amoon xool li yàlla defal ñun yow waxuma da ngay woor di wax waaye da ngay woor sax di bàkkaar bi nga xamante ni nee na leen damaa woor du ma wax joxoñ xale bi foofu nag nit ñi daal di mer ni ko nan la ñuy waxee xale bu nekk ci berso liir bi ni ñokket jub toog allahu akbar muy xabaar boo xam ne addina bi yëpp ak moom loolu lañ doon waxtaane liir bi ni ñokket jub toog ne leen inni abdullahi man jaamab yàlla laa ay ki naan isa leneen la lu dul jaamu yàlla mi ngi tooñ yàlla de mu inni abdullah qul isa juddu nekkub liir wax muy kéeman waaye lim njëkk a wax baata fas fas la muy man jaamu yàlla laa aataani al kitaab yàllaa ma jox téere wa jaal nabiyan moo ma def yonent yonent bi liir fu ngeen ko mas a gis bii mu ne wa jaalani nabiyan yàlla ma def yonent wa jaalani mubaarakan ayna ma kunt yàlla ma def ma ne ku barkeel fu mën a jëm wa awsaani bi salaat déglul daf maa digal julli ay jullee fi yàgg ku ko dul def doo jullit de wa awsaani bi salaat wa zakat daf maa digal julli ak joxe azaka maa dumtu xayyan fi yëg maa ngi dund boo jàppee da ngay jaamu yàlla xëy xëy ba leer gi yegg foog dañaan julli wàcc na la déedéet maa dumtu hayyan feeg maa ngi dund lu mu ca teg wa barram bi walidati waaye maa ngi gërëm sama wayjur wu jigéen allahu akbar wallahi yàlla subhanahu wa taala dama wax ni nit ñi dañoo doy waare waaye borom bi jërul woon sax muy setal woo ndax setal nañ ko ba pare xoolal ndax waa ji waxul maa ngi gërëm sama ñaari wayjur ndax amul ñaar benn la am wa barram bi walidati maa ngi gërëm sama yaay ndax moo ma jur waxul sama baay ndax baay amul foofu walam yajalni jabbaaran shaqiya maa ngi sant yàlla bi ma deful saay saay ab mbër lu mu wax wa salaamun alayya yàlla na jàmm yàlla ne ci man yow ma wulittu bis ma juddoo wa yow ma amutu bis may faatu wa yow ma ubaasu xayya moo tax Isa ak Yaxya dañoo daje benn bis Isa ni ko ñaanal ma Yaxya ni ko ñaanal ma kenn ku nekk naan moromam ñaanal ko Yaxya yaa may ñaanal ndax yaa ma gën mu ne ko lu tax maa la gën mu ne ko yow man ci sama jëm bopp man Isa man maa wax ah euh, wa salaamun alayya yawma wulidtu man maa ñaanal sama bopp mu ne ko yow ñaallaa la ñaanal boo jeexalee sunu borom wax wa salaamun alayhi ci Yaxya sunu borom ne wa salaamun na jàmmi yàlla nekk ca moom yawma wulida wa yawma yamuutu wa yawma yubaatu xayya kon yàlla moo ñaanal Yaxya bu dee Isa nag moom moo ñaanal a wa salaamun alayya yàlla na jàmm yàlla nekk ci man mu ne ko comme yàllaa la ñaanal man ma ñaanal sama bopp subhanallah la yooyu dégg-dégg ni mu xuuteeg ragal yàlla googu gis nga noonu la Isa juddoo wax ak xeet wi jaamab yàlla la ah noonu nag suñu borom moo tax yonent yàlla bi ne képp ku gëm ni man yàlla rek lan war a amul beneen buur bu ñu war a jaamu man Muhammad ndawam la àjjana dëgg la sawara dëgg la isa jaamab yàlla la ndawam la ruu la ko yàlla sànni ca Maryam mu juddu yonent yàlla bi ne boo dee loo saay saay saay loo am ci jaamu yàlla lu mu tuuti tuuti di nga dugg àjjana allahu akbar xoolal moo tax gis nga duggum àjjana du ci këpp këppal julli yu bari dem màkk ñëw ne fi télé bi rataxee rataraxe déedéet mbir mi xam nga lan la fexeel sa xol bi set ba boo dajeeg yàlla yàlla xam ni ataahu abduhu bi qalbin salim xolam bi dikkal na ko ci xol jaam bi dikkal na ko ci xol bu set wicc moo tax sunu boromu ni yéen ahlal kitaab ñi nga xam ni ñoom mooy ñooñ téere ñaa isaa wàccoon ca ñoom mu ni leen laa taqulu ala allahi gayra alxaq bu leen wax ci yàlla lu dul dëgg innama almasihu isa bnu mariam masiix mi doomi mariam la wa kalimatuhu kàddug yàlla la goo xam ne alqaaha ila mariam moo ko sànni ci mariam wa ruuxun minhu ruux la gu bàyyikoo ci moom yàlla kay kenn rek la tudd ak sellam jomb am doom soxlawu ko ndax moom samaan ak suuf da ngay am doom ngir lan da ngay yëg bànneex yàlla soxlawul bànneex da ngay am doom ngir lan yaa ngi séntu boo màggetee mu aw la borom bi du màgget da am doom ngir lan da ngaa bëgg sa takk ndeer des fi borom bi subhanahu wa taala dul jóge ba am lu fi des da doom parce que am doofu da ngaa néew kattan am ay bànneex boo gisee jigéen joo bëgg mel ni ku tàqalikoog sagom yi yëpp taala allahu an dalika uluwan yàlla sori na lii lépp lii ak ak ak ak ñàkk a xellu la kuy yàlla subhanahu wa taala doom gis nga kon Isa du doomu yàlla de muy lan yastankifa al-masiih an yakuna abdan lillah Isa dafa ñemee dof dof lu ba naan a nekk lu dul jaamu yàlla wala malaaka yi sax dañoo ñemee wax doon duñ ay jaamu yàlla wa man yastankifa an ibadati ku lànk bañ a jaamu yàlla ngir jiiñ sa bopp yàlla mu ni bu ma dajeeg yow nga xam ni maa la bind gis nga kon sunu borom mu ni laqad kafara alladina qaalu inna allah wal masiih ibnu maryam ñu wax ne Isa doomu yàlla la wet nañ yàlla qul fa man yamliku min allahi shay'an kan su bëggee alak Isa alak yaayam waaye alagaale waa kaw suuf yépp kan moo mën ci dara kenn sunu boromu ni tudd na ak sellam moo moom asamaan ak suuf li ci diggante bi ah lu ko soob lay bind te moo am kàttan ci lépp sunu boromu ni ñu wax ne Isa mooy ñetteelu ñett ñi wala yàllaay ñetteelu ñett mooy yàlla Mariam Isa yàlla yàlla la Maryam di yaayu Isa yàlla la Isa yàlla du nekk ñett law kaana fihima alihatun illa allah la fasadata bu asamaan yi amoon yeneen ñaari yàlla guddut yàlla ngeen xam ñaari njiit ci benn réew ñaari président scandale rek kii day xëy yàlla ji day xëy ni man damaa bëgga taw kii ni ko tey taw damaa naaj kii bëgg a naaj kii ni ko déedéet damay niit kii ni damay rey diw mu ni ko soxlaaguma mu dee naga ni coow li ni kurul moo tax mu ni innama huwa ilahun wahid jenn yàlla rek la moom rek la ñuy jaam sunu borom subhanahu wa taala mu ni képp koo xam ni yaa ngi wax loolu boo ci tuubul musiba ju rey danaa dal ci sa kaw xanaa du ngeen tuub jëm ci yàlla jéggalu ko ndax yàlla kat moom mooy buur kon mbokk yi nii la Isa ci ay xisas yu gudd ci dundam ba xëy xëy nag ci bu gën a gàtt rek Isa yëg ni ay nit ñi ngi koy jaxaseeg buur bi ndax danañ woote ci yàlla ñu dem jaxase ko buur bi ba buur bi joxe ndigal nan ko rey gis nga biñ koy wër Isa toog yoon mu ne leen man kat ñu ngi may wër pour rey ma kan mooy sacrifice wu boppam yàlla nurale kook man ñu rey kooka benn xale bu góor jug mu ni ko toogal waxuma la mu waxaat li mu waxoon bu góor bu jug mu ni ko toogal waxuma la mu waxaat li wax ñëpp toog xale bu góor ba jugoon moo jugaat mu ne ko yow mii kon yowal yow la bi gaa yi dugusee di jàpp Isa yàlla dafa déformé Isa jox kanamu Isa xale boobu ndax yonente bi Isa woon na ko soo ma remplacé yow la ni rey te buñ la rawee ma yaay ñu bari na dañuy wax ne ña àndoon ña ko doon faat kenn ca ñoom la waaye li gën a dëgër mooy lii loolu la baxarul umma wax muy abdullah ibn abbas te mooy gën a wér insha allah noonu bi amee ñu daal di yéegal isa ci kaw asamaan inni mutawaffiika wa rafi'uka ilay yàlla ne naa la faat yëkkati la fi man ñi la topp ñooñooy ñii kawe mukk ba faaw ah waaye ñi la weddi woon ak di la rey de ñooñu ne buñ dajeeg man dina àtt ci liñ doon wuute yahudi yàlla di leen tontu ñoom ñi nga ñu bari Eh, chrétiens yi gëmun ni Aïssa dañ ko rey gëmun loolu de am na ñenn ñu ko gëm waaye ñoom dañoo yëg ni Aïssa dañ koo yëkkati bal démb sax defe naa ci réew mi lañ doon peetu bis bi ñu yëkkati Aïssa waaye ak a neexoon nañ ko gëmee ndax noonu la dëppoo alxuraan ñu gëm ni Aïssa doomu yàlla wallahi loolu ko ko wax kàcc nga ak foo commencé kàcc nga ndax lii mooy dëkk lii mooy alxuraan Aïssa du doomu yàlla doomu yàlla la fi ñun moo tax bi bi Aïssa nit ñi def ñetti xaaj ñenn ñi mooy al yaqubiya mooy ñi nga xam dañ ne Isa moo nekkoon yàlla dafay ñëwoon yàlla demaat na an nasturiya mooy ñi nga xam dañ ne Isa doomu yàlla yàllaa ko fi yabaloon jëlaat na ko beneen kuréel bi mooy ñi gëm yàlla nga xam ne ñoom dañoo gëm ne Isa du doomu yàlla du xaritu yàlla du lenn lu tut ab jaam ab yonent moo ko yónni woon ci nit ñi loolu bi mu amee nag borom bi subhaanahu wa taala rek daal di dëgëral ñi nga xamante ni ñoo ñi gëm yàlla kon ne yàlla yëkkati ko ca kaw asamaan bi mu ko yëkkatee ñu ñëw fekk xale bu góor boobu ni mel ñu jël ko pendre ko rey ko juif de ñoo def loolu de juif yee ko def juif yee ko def ñoom lu ñu ci jublu woon mooy saboté moo tax dañoo inna qatalna almasiha suñu borom mu ni déedéet wa maa qataluuhu reyuñ ko de wa maa talabuuhu pendruñ ko walakin subbiha lahum daa am kuñ ko nuraleen allahu akbar lii aajoon ñu wax yonente bi nee na sax faf lii aajoon ñu naan nañ wax ko yàlla nee na rek mu jot yàlla ci alquran moo ne wa maa qataluuhu kenn wa ma talabuhu kenn fàndaru walakin subbiha lahum daa am kuñ ko nurale gis nga ñu yëkkati ko ci kaw asamaan sa daa dee déedéet bàyyil ba ci sunu borom ni la daa dee dama laa faat te faat ga dana dellu siwaat gisuñ benn tal bu nuy wan ni dafa dee kon nañ jàpp ca loola ba keroog ñu koy gis dina dellu siwaat nag kañ lay dellu siwaat ci mujjug jamono ak dellu see mandarga yi wan ni àddina jeex na ba noppi la ndax wa innahu la ilmun lissaa yàlla mu ni peeñu Isa am na beneen riwaaya sax wa innahu la ilmun lissaa ñun moom la ñuy jàng am na beneen riwaaya te wér na wa innahu la alamun lissaa te riwaaya boobu wér na mooy lii ab mandarga la boo xam ni day wane ne àllaaxira jeex na gis nga Isa ibnu Maryam nag dem na yonent bi fekk na ko fa mu di ñaanoon dana dellu si na ay nit ñu ngi woote wanaan ñooma waaye dama ni xutba jii di ñëw insha allah faram fàcceeg wàccam ak nu muy wàccee danañ ko ca wax waxoon naa leen ni fii ak li wundu Sénégal ba Afrique jeex moom ku fi wàcc moom dëgg dëgg dëgg doo ko ndax yonent bi wax nañu fa muy wàcc wax nañu melokaan wa muy wàcce wax na bu wàccee ni àddina bi mel ah salla alayka ya sallallahu alayka ya rasulallah lépp loo xam ne mooy indi lënt suñuy bopp rek yonent bi dindi na ko sallallahu alayhi wa sallam bu dellu see am fi diir ba suñu borom faat ko jullit ñi jullee ko mu daal di dem ca gannaaw demam nag daanaka mën naa ni moom jeexuk àddina benn la kon lii mooy li gën a dëgër ci kan moo doon Isa ci anam wu gàtt gàtt gàtt amaan na ci alquran ci xadis yéen sa salam danañ gën a xam ak dundam ci gën a faram-fàccew lii tënk la bu gàtt kon noon ngi ñaan suñu borom mu boole ñu ci jaamam yi ñu déggee wax ñu seet la gën a rafet gën caa baaxul jëlee ko topp ko nu ngi ñaan suñu borom mu boole ñu ci yi nga xam ne du ñu fas leneen lu wuuteeg la yonent bi fasoon ndax buñ ko defee torox noo ngi ñaan suñu borom mu fàkk suñu xol yi rokkas ci sëmbërtal ci leeru ngëm te bu ñuy dee ñu faatuwaale loolu nu ngi ñaan suñu borom subhana taala mu boole ñu ci yal na yàlla subhana taala musal nu ci sawara ak coolool waa tàngoor wa yal na yàlla subhana taala defal ñu tawfiq fuñ manti nekk yal na yàlla dimbale ñu ci ndimbalam lu yaatu loolee rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi laxirati xasana wa qina adaba annar rabbana la tuzig qulubana ba'da id hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على الحبيب محمد وآله وصحبه أجمعين